Christian Sambou maa ngi lay nuyu. maa ngi euh, alors nga euh, ci wàllum géopolitique waaye tamit sa xel màcc ci lépp loo xam te ne euh, jëm na ci politique ki nga xam te ne mooy xalifa Sall gis nañ ne mu mel ni ku fi bëgg a taxawal ab benn coalition gu yaatu ginnaaw ga mu dajaloo ak ñenn ñi nga xam te ne ñoo bokk ci parti am ana nan nga ko jàngatee. bokk ci jongante jongante. élection présidentielle yu euh, passé yu mars deux mille vingt quatre donc euh, askan bi jot ko jox euh, soixante neuf mille voix. Hmm. après élection yi nemmeeku ne ci ci moom silence silence bu xaw a peut-être stratégie la tamit mais tey bu jógee woote coalition autour de sa personne autour de taxaw tamit. Euh, mën nañu xaar ba coalition bi taxaw pour mën a def analyse yu gën a yu gën xóot yu gën a sori mais mais pour l'instant euh, trois éléments mën nañ ko mën nañ ko tirer ci ci ci annonce coalition boobu bu ci njëkk mooy euh, soxla def coalition pour dem élection day wone ni que taxaw Sénégal taxu ko dëgër noonu surtout sur l'ensemble du territoire national te résultat élection er yi jot na ko wane tamit. bu mhm. øh, ci topp mooy øh, jéem tabax coalition autour de la personne de Khalifa Sall mën na wane ni tamit que daa bëgg a jël bëgg a nekk leader opposition parce que euh, espace politique euh, euh, jot jotuñu gis en tout cas leader leader boo xam ni day opposé wu carrément ci ci régime régime bu bees bi. waaye tamit mën nañu mën nañu laaj ban genre opposition lay doon ci ci ci ku mel ni Khalifa xalifa Sall. Hmm. mais gëm naa ni tamit opposition bu dal lay doon leader opposition parce que noonu lañ ko xamee euh, bu ci bu ci topp mooy euh, élection législative yu deux mille vingt deux donc xalifa euh, Sall jot na jiite coalition bu ñu tuddee Yewwi Askan Wi. donc euh, bu jot a am euh, plus de un million de de voix sur le territoire euh, national ci Dakar jot na gagné cent quatre vingt dix mille voix mais question bu ñu mën a bu ñu mën a posé wu mooy voix yooyu askan boobu baat yooyu kan ci ci kan la ñuy dem wala kan moom moom légitimement baat yooyu ndax Khalifa la ndax Sonko la donc élection yi ñëw prochaine élection yi dinañ ko dinañ ko wax carrément. lu ñu lu ñu ci mën oui allo. Mhm. alors ndax large coalition googu moo bëgg taxawal ndax nekkul rek euh, stratégie euh, politique goo xamante ne dina jëm rek euh, ci wàjjal législative yi. waaw bon législative yi bon annoncé guñu ko mais lu ci mënti wax rek mooy ci ci boo xoolee taxaw ak limite yu mu mënta am ak ci voie vivier électoral coalition lu baax la ci euh, ci ci ci taxaw pour mën a am euh, nombre de sièges yu doy pour mën a constituer groupe euh, groupe parlementaire donc stratégie politique la stratégie bu mën a bu ñu mën a saluer la mais nañu xaarangum pour pour xool xool coalition bi xool dayoom pour mën a def ay analyses yu gën a xóot. alors lan mooy ëllëgu politique ki nga xamante ne rek mooy Khalifa Sall. Khalifa Sall ci ci wàllum politique. mérite bu bëri la am kangam la ci euh, ci politique jot na ko wane euh, ci euh, ci ci conquête de la mairie de Dakar ci 2009 jot na jot na ko wane tamit ci gouvernance am ci mairie Dakar alors que opposant la woon ci régime Abdoulaye Wade mais gëm naa ni bon passage am jaar-jaaram ci prison jot na ko gàllankoor lu bëri ci ci wàllum politique ci avenir politique Euh, mën nañu wax ni tamit politique affaire génération la euh, te euh, PASTEF moo nekk tey au pouvoir te gouvernance PASTEF dafa xaw a xaw a changé tuuti kanamu politique Sénégal ci wàllum ay nit donc ci wàllum doxalin tamit donc loolu day day doon lu métti ci ci ci ay njiit yu bëri ay dirigeants yu bëri parce que dirigeants yi léegi ak waa PASTEF gouvernance PASTEF dañoo gën a nekk ndaw donc euh, loolu lu mën a am effet la tamit ci euh, ci euh, ci homme politique femme politique yu bëri Sénégal ñu bokk ci ancien ancien système bi ancien parti parti classique. Mhm. alors ci wàjjulum législative yooyu les sax daanaka am na ab benn kuréel gu fi taxaw duppee boppam souvent le PDS mu mel ni daal lépp jëm na rek ci fexe ba PDS tamit mën na jëlaat place am ci espace politique boobile. waa PDS mooy partie bu njëkk ci euh, ab suñu histoire post indépendance histoire politique post indépendance parti euh, bu njëkk d'opposition donc parti bu am solo la euh, parti bu am taxawaay la tamit ku ne PDS ne maître Abdoulaye Abdoulaye Wade te jot na def lu bëri en tant que jiitum jiitum réew donc boo xoolee parti PDS jot na jot na jot na absenté wu ci ñaar élection topp mooy deux Euh, deux mille dix neuf yi ak euh, deux mille vingt quatre yi loolu xaw doon lu doy waaxu ci parti euh, premier parti d'opposition ci suñu réew donc c'est normal que ay nit jóg ay militant jóg woote sauver le PDS donc loolu loolu normal la ci ay militant pour gën a taxawal seen parti pour jongante peut-être législative yi ñu Mhm. alors lan la ñu war a mën a def rek ngir mën a sàmm yi tamit léeg bi nga xamante ne moom la fi Abdou Abdoulaye Wade jot a def. Euh, parti lu lu luy luy définir parti mooy gagner ay élection mooy conquête du pouvoir. Hmm. Euh, science politique ñuy faral di ne parti moom boo koy définir premier critère mooy euh, objectif am doon conquête du pouvoir donc pour parti bi gën a taxaw léegi Abdoulaye Wade gën a continuer. Euh, dañoo war a gagner ay élections parti PDS euh, mënul toog ay deux élections présidentielles euh, voilà bañ a bokk ci ay ay jongante donc daa war a gagner ay ay sièges sur les prochaines élections législatives te donc war a participer ak changer logiciel c'est-à-dire war a tabaxaat parti bi hmm. pour joxaat ay lignes lignes claires Euh, par rapport ak euh, régime bu fi nekk tey euh, te PDS je pense que PDS bu bu PDS bu tey warul doon PDS bu Abdoulaye Wade des années quatre vingt wala des années deux mille donc dañ ko war a war tabaxaat mais tabax ko ci héritage u incontestable bu Maître Wade mhm. donc pour pour gën a protéger legs bi tamit je pense que militants yi dañoo war a liggéey ci ay ay leg leg boobu héritage boobu ci ay conférences ci ay fora gën a fësal euh, liggéey bu Abdoulaye Diop gën a fësal ligne libérale bi gën a positionné wu en tant que parti euh, de di bañ di seey ci ay ay coalition euh, di jël ay risques di seeyal idéologie idéologie libérale parce que idéologie bu taxaw la tamit idéologie bu mën a la ay dëgër parce que Abdoulaye Wade jot na jot na ci réew mi durant deux mandats Hmm. ndax Karim Wade yi tamit warul jël responsabilité ngir mën na éviter rek yi tamit parti bi daanu. bon gëm naa ni daal euh, militants yi ñooy gën a jox euh, Karim Wade responsabilité boo xam ni peut-être bëggu ko jël wala wala amu ko tamit euh, maanaam daal Karim Wade bu dégg mel ni nga jël mbër boo xam ni. yaa ngi koy naan bokkal ci ci ci voilà ci ci xeex bi te mbër boobu bokk nekkul ci géew bi depuis dix ans donc Karim Wade mi ngi absenté wu ci ci réew mi depuis depuis près de dix ans exactement huit ans donc lu xaw a bëri la tamit donc laaj ko ay yeneen responsabilités yi alors que mi ngi bitim réew lu xaw a lu xaw a jafe la tamit. Mhm. donc gëm naa ni tamit le fait ñuy xaar Karim Wade xaar xaar bu bëri bi ci Karim moom mooy tax tamit PDS euh, di dund crise yu mu am ni donc euh, waa PDS dañoo war a dépasser yooyu donc PDS tey am na ay kàngam yoo xam ne ay xale yoo xam ne mën nañu jiite euh, parti bi. donc euh, ci yoon yooyu la ñu war a wax euh, ci départ yu bëri nga xamante ne am na jamono ji ci APR ginnaaw euh, ancien ministre yi ku ci mel ni Cheikh Oumar Anne Abdou Latif Coulibaly ah. gis nañ Doudou Ka waaye tamit ki nga xamante ne mooy frèreu ancien chef de l'État di Aliou Sall ba ci ki nga xamante ni mooy Ibra Seck moom mi nekk tamit directeur carrière ministère énergie ak pétrole ana nan nga jàngatee situation boobile. bon très souvent euh, parti euh, au pouvoir bu ñàkkee pouvoir bi rek ci ngay gis euh, ay conséquences yeneen conséquences yu fâcheuses mel ni ay démission parce que tamit pouvoir day day day xaw a xaw a couvrir lu bëri ci lu bëri mën nañ ci am jàngat yu bëri en tout cas première jàngat bu ñu ci mën a am ci démission vague de démission yi hmm. mooy mooy bataille de positionnement yi wala conflit de leadership yu yu nekk biir biir APR donc loolu première jàngat la ci démission bi ñuy faral di gis euh, beneen affaire bi moo moom moom laa doon moom laa doon wax sànq nii mooy exercice du pouvoir day day day faral di di di di nëbb di nëbb ay divergence idéologique yu bëri ay féewalu yu bëri ay point de vue euh, ay différence de point de vue tey euh, le fait de perdre le pouvoir jox daf ñuy won ni ni tamit que bon divergence yi amoon na Euh, par exemple entre euh, boo déggee Aliou Sall euh, contre Mansour Faye ci ngay xam ni que divergence yi xawoon na solo tuuti divergence yi entre Macky Sall tamit ak Amadou Ba donc loolu yëpp day feeñ boo leen perdre pouvoir hmm. beneen beneen beneen aspect bi mooy APR niroo na ma parti bu amoon absence de démocratie interne de parti Euh, loolu mën na tax sission yi démission yi xaw a bëri par exemple tey boo jëlee Macky euh, ci yan mécanisme ci yan bànqaas lañ ko lañ ko tabbee euh, secrétaire général du parti niroo na ma lu arbitraire boo xam ni bon jiite nga perdre nga pouvoir en tant jógee nga fi en tout cas yaa réew mais yaa ngi bëgg a imposer en tant que secrétaire général donc en terme de démocratie interne luy créer problème ci ci ci parti am na am na lu luy jëm tamit ci déception électorale Amadou Ba 35 pour cent rek la def pour parti euh, parti sort au pouvoir sortant lu xaw a décevant la euh, mais affaire tamit lu ñu mën a lu ñu mën a euh, nemmeeku mooy absence claire de ligne de de et de vision politique affaire du parti tey boo xam ni mën nañ ko considérer comme véritable parti d'opposition te ci opposition APR deux ans rek la jot def opposition avant muy euh, muy muy jël réew donc euh, parti la boo xam ni amul amul expérience d' opposition comme PDS wala bu def quarante ans d' opposition wala PASTEF cinquante ans euh, pardon dix ans d' opposition donc loolu yëpp ay déterminant la par rapport ak démission yi ñu jot gis mais lu ci gën a gën a gën a ëpp solo mooy. absence de ligne claire absence d' objectif en fait euh, bu parti bi mooy tax gars yi di démissionné alors ñu jeexalee rek ak déclaration de politique générale ñu gis ne ginnaaw proposition yi ak waxtaan yi nga xam ne lal nañ ko fa mu mel ni euh, kii di limaanu jëwriñu Ousmane Sonko war na def DPG am ci kanamu assemblée euh, nationale risques yi nag daanaka bëri na ci li ñu jot a wax lu ci mel ni mission de censure waaw euh, déclaration de politique générale jur na coow coow lu bëri mais lu ñu mënti wax tey mooy euh, avec euh, troisième alternance bi ak falum Bassirou Diomaye Diakhar Faye cinquante quatre point vingt huit pour des voix Sénégal dugg na tey ci taarixu démocratie mature wala démocratie en maturation donc loolu lu am solo la te loolu peuple bi moo ko joué wàllum peuple bi la moo wonee ni tamit que moom moom mature na bëgg na ay élection paisible transparente léegi député yi ñoo ci des euh, bu ma nee député yi tamit maa ngi tudd député euh, d' opposition yi tamit ñoom ñoo war a nekk à la hauteur de leur responsabilité yeneen saa yi tamit réew day bàyyi politique politicienne bi dem euh, ci ci ci lu gën a am lu gën a am solo. Hmm. déclaration de politique générale bu premier ministre warul warul jur coow coow lu bëri te warul def warul nekk objet de menace tamit ay xuppaate affaire waru ko doon parce que. ci ci ci réew yu mature yi ci démocratie yu mature déclaration de politique générale ay daa mel ni fête daal daa mel ni euh, moment de contradiction de débat euh, moment bu bu ñu privilégié la parce que day day permettre premier ministre joxe grande ligne d'orientation yi par rapport ak politique politique yi muy doxal ci ci at ci at yu ñëw hmm. donc euh, dañ soo war a taxaw ak beaucoup de responsabilités man ci man comme citoyen moment bu may xaar la et euh, euh, risque bu ñuy wax tamit de motion de censure tamit lu lu lu mën a lu mën a ñàkk la tamit lu ñu mën lu ñu mën ci wax tamit mooy boo boo censurer gouvernement euh, président Diomaye am na prérogative tamit delloo même gouvernement tabaat même gouvernement bi te dekk motion de censure ci texte texte yi ñu jot wax mooy il faut que premier ministre wootee euh, vote de confiance pour nga mën a dugal motion de censure donc motion de censure def na bruit bu bëri mais mën na bañ a am tam parce que premier ministre mën na def déclaration de politique générale yem ci nag bañ a woote vote de confiance donc loolu lu am solo la tamit euh, ci euh, ci analyse bi ñu mën a def ci ci motion de censure bi mais lu ci mënta nekk rek nañu na premier ministre def déclaration de politique générale am comme ça citoyens sénégalais yi xam fan le gouvernement bu bees bi di ñu jëmalee ci at yi ñuy ñëw. Christian mhm, Christian jërëjëf may fàttali rek ne expert nga ci wàllum géopolitique waaye tamit nekk analyste politique ñu ngi lay jaajëfal bu baax a baax.